waa déroulement yi yoon la baax na jaar na yoon nit ñaa ngi voté tranquillement amul benn problème wax dëgg yàlla euh, dem nañ ci tamit li ñu njëkkoon def mooy dem waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñii nga xam ne ñooy nekk ci bureau de vote yi di siéger waxtaan ak ñoom laaj leen naka la demee mbaa amul problème mbaa amuñu benn soxla a dëgg yàlla wax nañu ne amuñu benn soxla amuñu benn problème lépp a ngi jaar ci yoon. waaw man xam nga fi fii sama juddu la fii ginnaaw raay mooy sama juddu ginnaaw raay man sama dara génnul ginnaaw man du ma nekk candidat di fanaani feneen man kandidaa bi ma doon ci ginnaaw raay gii laa dëkk ci laay fanaan ci laay yenn donc ginnaaw aussi conscient nañ que ni tey jii seen devenir pour cinq ans. tey lay tàmbale donc jàpp naa ni dina ñu jël seen devenir teg ko ci loxo yi ñoo xamante ne su ëllëgee ci cinq ans yi di ñëw ñoo leen di gouverner te dañuy dëkk ak ñoom bu ñu soxlaa gis leen donc man fi laa dëkk fi laa juddoo sama papa nekk fi délégué de quartier euh, quarante cinq ans ba jóge fi dem ñu bari tey boo leen déggee dañ naan am na ku jooy léegi ci bunt bi ni ma tey nga xam ni def lu baax am na solo kon xam ma ko sax mais dafa jooy paala kilifa jooy ni ma tey nga xam ne def na lu baax am na solo kon ñoo ngi ñaan yàlla rek euh, li xew ci subaak léegi muy confiance muy vote yoo xam ne ñëpp seede nañ ne suñu côté la jëm suñuy électeur teel nañoo génn vote ji vote boobu ñu continuer ko ba ngoon jàmm am ki gañe gañe ki gañe nag ki nga xamante ni moom lañ gañe mu muñ mais tamit na nguur gi xam ne duñ ko may dara ki fi nekkal nguur gi muy suñu rak di Pape Ndiame Dieng na xam ne duñ ko may virgule bu muy sàccee du jaar muy waali muy candidat yi ci des déggoo nañ ci ba nga xamante ne ñoom duñ sàcc ñoom mënuñu sàcc buñ fi génnee luy ordonnance wala lu ma fiy dégg man ci préfet laay wékku lu ma préfet wax laay def te man député laa ordonnance amul ci élection yi ku ko fi génne danañ la tooj yóbbu la police nga fanaani fa dof buñ ko jox ba nga jël ko ba jéem a ñëw fii di jaay booy nañ la tooj yóbbu la police. woote jàmm bi également man jàmm rek laay woote bañ naa ko ba ma xëyee soluma vert soluma bleu soluma dara weex laa sol. ñëw ni leen kaay leen ñu jàmm ak ambiance jàmm jàmm heure bi bu ngoonee ñu ambiance <laughs>